xel xel mu sell mënu koo imaginer moo tax gis nga ñoo ñi nga xamante ne dañu nekk ay éternel optimiste man je suis je peux comprendre que certains peuvent être optimistes man je le suis pas man dama jàpp ni situation bii ñuy dund ñu jàpp fi opposant pratiquement un mois léegi mu ngi ci kaso bi tëj nañ ko ci këram cinquante cinq jours jël nañ ko fii taxañ taxañ dugal ci kaso euh, dugal ci dugal ci euh, dugal ci auto police yóbbu tribunal gaze nañ ko fi yeneen ak yeneen ku def loolu yëpp man amul lu ma lay miimal kooku bu ñu ma nuwee ëllëg dina fexe ba Ousmane Sonko du bokk élection présidentielle du ma toog di entité wu di naan non non non focus 2024 ah du ma toog di c'est improbable xanaa ki dafa dof noo non je le dirai ay mooy suñu candidat de A à Z xaw ma lan ak lan taxul mu doon candidat comme la dernière fois rek lu ma leen doon wax ci ay affaire euh, Sonko ndam nañ ko xaw ma euh, tëbëk fecc ak yooyu noonu folklore boobu ñuy wéy naan wéy euh, parce que en réalité mooy suñu seule alternative parenthèse bu ndaw la rek bu nekkee mooy mooy mooy seule alternative mooy donc da ngeen abdiquer da ngeen accepter que ni lii de injustice la boo xamante ni moo ñu ëpp doole waaye léegi bu nekkee injustice boobu noonu mooy lu ëpp doole ba mënoon leen ci dara ba mënoon leen ci dara vous Euh, bati ngeen ni ñun de nangu nañu ni lii fi ne moo ñu ëpp doole amatuñu benn choix amatuñu benn alternative donc dañuy dem ci stade yi di way ak euh, ci ci ci place publique di woy ak di tëgg parce que loolu moom moo ñu dese comme alternative boo leen waxee lool mooy que yéen accepté ngeen que ni dañ leen gagné accepté ngeen que ni li fi nekk leen ëpp doole waa léegi li fi nekk noonu bu leen ëppee doole tey tey tey tey tey suba ak ginnaaw suba nan lay mel c'est la question. bu nekkee tey tey tey tey tey nga avoué que ni yow kii moom moo la mën nga defee ni kooku bu demee ci yow ci li nga xamante ni moom mooy euh, lu mu tudd bu demee ci yow ci ci ci ci ci ci jaay doole ni la sa candidat du jàll lan ngay def après da ngay dem di continuer di way bu ñu la nuyee Sonko du doon candidat da ngay dem di continuer di way di naan Sonko nam nañ ko wala Sonko dafa doon dafa war a doon candidat bu ñu la waxee nga nii no non non parce que lii mooy suñu seule alternative lii rek nañu am comme comme comme comme comme moyen de lutte parce que euh, moyen de lutte yëpp baax nañ d' accord on c'est juste des questions que je me pose ah man je suis je suis je suis pas militant observateur la gis ni am na loo xamante ni injustice la ki ma xamul tey nag moom mooy toog di wax ay waxu Sonko de la même façon tey jii li may défendre ay principes yoo xamante ni da nga koy méngaleeg Sonko nga ni kii militant Sonko la noonu laa ko doon defee diggante 2014 pratiquement 2016 eh, ci ci ci ci Karim Wade noonu laa ko defee ak Khalifa Sall mais malheureusement les gens retiennent que ce qu'ils ont envie de retenir ñu bëri dañ ma doon méngale ak militant au PDS parce que tout simplement man dama yàgg jàpp ni CREI yi nekkul institution boo xamante ne bu baax la bu mën a juger ki nga xamante mooy Karim Wade ba mën koo tëj condamné ko. encore que bu ñu nuwee dañuy topp ay sàcc nañ commencé si sàcc yëpp bu ñu nuwee dañuy topp ñi nga xamante ni ñoo détourné euh, euh, alalu askan bi mais bu ñu bàyyi kenn loolu moo yàggoon nekk yu principe te jamono yooyu noonu ñu bëri dañ doon wax ni kii élément au PDS la ba ñu paree ci man euh, ba ñu paree ci lu mu tudd Karim Wade dem ci Khalifa Sall aussi même position la même posture la tey jii ñu nekk ci Ousmane Sonko même position lay doon même posture la parce que ay position la posture bi mooy dire sénégalais que. bu nekkee déjà da ngeen accepter que ni li fi nekk nii li fi nekk nii moo leen ëpp doole bu amoo leen benn choix amoo leen benn alternative lu dul taxaw di woy ak di tëgg bool bu leen yaakaar ni di ngeen am candidat bi jàll 2024 parce que en face en face même bu nekkoon da ngeen di xeex sax dañuy xeex ak yéen waxuma laa nan ngeen faciliter leen ngeen faciliter leen li nga xamante ne mooy mooy mooy mbir yi moo tax j'ai dit que ni man waxuma kenn pour mu dem ci ay violence wala ay ay ay ay insurrection man je pas inconscient pour dugg ci yenn détails yi du ma ko def mais j'ai dit tout simplement que ni gis nga jamono am na fu muy tool il faut que nit ñi jël seen responsabilité moo tax ma ni magum Pastef fii nañu toog ñu xalaat demee seen xel bañ demee seen xol gis nga xel day ànd ak xol mais xol bu duggee kase te xel ñëwul lu muy def xel da koy teg fële de côté parce que du doon loo xamante ni lu réfléchi la bu ñu yaakaaree que ni en face dinañ leen may benn mbir bu ndaw lu lu mel ni lu toll ni tafata ay ni duñ leen ko may lu toll ni tafata ay ni duñ leen ko may duñ leen may dara lu ñu mën a sukkandiku pour Ousmane Sonko bañ a doon candidat dinañ ko def parce que en réalité il est question de système et anti-système le symbole de l'anti-système bi nga xamante ni ñëpp nangu nañ ko mooy Ousmane Sonko bien que moom sax moom moo ko doon wax si antisystème antisystème antisystème ki nga xamante ni tey jii lépp li ñuy wax ci système bi mën nga ko xool rek waxuma la sax nga dugg ci ay détails mais xool ko rek gis ko mooy ki nga xamante ni mooy candidat Benno Bokk Yaakaar te wax naa la moo tax en fait gis nga ay incertitude kase la nit ñi nag ñoo war a jël seen responsabilité waxtaan waxante dëgg te bañ a bañ yenn débat yi à l'heure actuelle ça rien ngay entêté wu ci yenn mbir yi à l'heure actuelle amul benn njëriñ ngay toog di jéem a am benn optimiste boo xamante nekkatu fi kii toog biir palais de la république ñëpp xam nañ ni la république dafa am lu mu tënkoo di fa amal réunion bennoo bokk yaakaar pire encore ñu koy teg sur la chaîne publique kooku nga defee ne am na lu muy hésité ku toog jël télévision bu toll ni Walfadjri tëj ko un mois nga defee ni kooku am na leen lu muy hésité nga defee ni kooku bu xëyee suba ni Ousmane Sonko du doon candidat bloqué waat euh, lu mu tudd réseaux sociaux yi comme ni ñu ko defee woon tëj tele yi nga xamante ni mooy tele télévision rebelle yi dem procéder à des arrestations ñenn ñu mu barricade seen kër kan moo koy tere def kan moo ko koy tere def kenn du ko tere def donc moo tax ma ni na magu Pastef fii jéem a xool nan la ñuy waxtaanee seen biir waxtaan boo xamante ni. njëriñ dina si juddu mais que ñu bañ a toog di ndax seen bopp di naan non du am du am du am sañu ko sañu ko sañu ko sañu ko non à l'heure actuelle lépp li nga xamante ni ay hypothèse yu pessimiste man li may wax ni hypothèse yu pessimiste la du loo xamante ni dafay ñëw dama ne hypothèse bu gën a pessimiste moom ngay jël nga calculer ko évaluer ko xool hypothèse boobu noonu bu taxawee lan mooy doon sa alternative je dis pas que du doon candidat dama ne ni hypothèse bi nga xamante ni moo gën a pessimiste mooy Ousmane Sonko du doon candidat léegi hypothèse boobu noonu il faut nga jëm ko résoudre mais dire que ni non non non le fait que nga koy aborder sax da ngay jox ñi fit loolu waxi caaxaan la non non non hypothèse boobu kenn waru ko aborder à l'heure actuelle parce que day diviser non non non non non non non non les questions se valent te gis nga toutes les questions doivent être posées surtout nag ci genre contexte yi donc ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk biir Pastef il faut que en moins donné ñu jël seen responsabilité xoolante ci ay gët xool. nan nañuy fexe ba Ousmane Sonko génn ci kaso be ñu xool aussi def li nga xamante ni mooy euh, ñu ñu ñu ñu def le bilan de de de de leur combat boo jëlee benn stratégie un mois stratégie bu jurul la dara mais da ngay toog nga def bilan d'étape nga ni ah bañ jàppee Sonko léegi de nangami fan la léegi mu yegg ci weer bu yeggee ci weer est-ce que ñun li ñu jël comme stratégie est-ce que stratégie bu baax la. bu baaxee nañ ko wéyal bu baaxul nañu wuti beneen alternative loolu mooy yëfu nit loolu mooy yëfu ki conscient mais bañ a demee fanatisme fanatisme mooy nga togg di naan non non non bon day doon candidat dina doon candidat 2024 day ñëw ñu jox ko réew mi incha allah non non non je désolé loolu mooy éternel optimiste te a côté nag ñi fi ne ñoom du ñoo xamante ne dañuy dundal de l'optimisme ñoom lépp li nga xamante ne jàpp ni mënul nekk rek jàppal ni mën na nekk si ñoom parce que en réalité ñu si duñ si duñ si duñ si euh, du si duñ si duñ si duñ si hésité di leen jaajëfal bu baax a baax a baax di leen jaajëfal bu baax di leen wax euh, ci kanam rek incha allah ñu def euh, def keppaar gi mais bon loolu la rek il faut ñu comprendre les trucs les les choses telles qu'elles sont mooy que il faut ñu xam ni mbir yi nekkul lu simple il faut ñu jéem complexe gën a xool lu gën a complexe ñu koy xalaat. mais bañ a tombe ci li nga xamante ne mooy si ay affaire de surface ñu dugg ci biir jéem a analyser mbir yi ci profondeur fàttaliku ni Ousmane Sonko barricade nañ ko këram cinquante cinq jours ku def lool amul lenn lu muy hésité fàttaliku ni wal fajri tëj nañ ko fi un mois fàttaliku ni am na ba tey jii nii plus de mille et quelques personnes ci kaso bi fàttaliku ni am na ñoo xamante ni wax nañu def wax wax ji sax yeggul dañu junj ñu jël leen dugal leen ci kaso bi ku def loolu yëpp tey jii bu nekkee yow danga koy xalaatal ay mbirum démocratie da nga koy xalaatal ni kooku dafay nangu li nga xamante ne mooy élection yu libre ak transparente yow la neex dalal la saxel mais man Pape Makhtar kooku dama koy xalaatal scénario bu gën a pessimiste ma jàpp ni loolu lay tax bu nekkee ci situation boobu laa nekk nag man Pape Makhtar damay xalaat xalaat ni scénario bu pessimiste boobu bu ñëwee lan moo war a doon sama alternative est-ce que damay topp di continuer di entêté wu di topp sama xol wala damay utiliser sama xel parce que aussi en réalité nit ki li mu bëgg mooy nga faciliter ko li nga xamante ne mooy lii gën a fexe ba jëmmal système bii fi ne di système boo xamante ni daf fi nekk di accaparer suñu richesse di ko séddoo suñu seen seen biir benn genre oligarchie boo xamante ni lépp lu ñuy dund si ay jafe-jafe ñooñu ko teg den jaajëfal bu baax a baax seen patron tuddul Sidy Lamine Niass tuddul keneen tuddul keneen c'est le peuple sénégalais c'est lui qui vous paie mooy ki leen di jëmale kanam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 seen patron tuddul Sidy Lamine Niass tuddul keneen tuddul keneen c'est le peuple sénégalais c'est lui qui vous paie mooy ki leen di jëmale kanam